sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad yéen waa Kun Fayakoun TV yéen ñi nga xam ne ni yéenay teewlu sukkaru koor yi euh, chaque si heure bi ñu defal leen benn vidéo boo xam ne ne si mooy sukkaru koor nga xam ne ne danga koy def rek sa aajo fayju tey nag ñi ngi ñëw si benn lim boo xam ne ne si latif képp ku bëgg xaalis boo ko sikkaree doo banque si eh, ismulaay bii nga xam ne moom mooy latif yaa latifu ngay sikkar nag booy def bu leen di sikkar yaa latif yaa latif yaa latifu pour yoon bi gaaw yan nag tey nag chaque waxtu julli daal moom képp ki nga xam ne ne man nga ko ñu ngi leen di jox secret bi nga xam ne ne si latif képp ku koy def doo tàggoo xaalis saa boo xëyee surtout si weeru koor yi yàlla di la may xéewal di la may koppar si ismulaay latif waxtu julli woo julli boo manee nga def bismillahi rahmani rahim 787 nga def ko boo paree nag nga def yàlla tiifu yàlla tiifu 387 387 latif lim bu doy waar boo xam ne ne si latif képp koo xam ne ne yaa ngi koy def waxtu julli woo julli ah sa aajo dootu tagati te foo tollu da ngay ubbeeku si wàllu wërsëg dangay am xaalis képp ku koy def nag saa boo xëyee ñu def ko balaa ngoor ñu jox la xaalis ismilaay latif ah, beneen bi ñu ñëw si muy ba tey si latif latif bi nga xamee ne nag moom pour wàllu maanaam nit koo xam ne dem nga ba jaaxle ba jaaxle ba jaaxle mbir yi dëgër na lool nga bëgg rek nga def ko rek yàlla ubbi mbir yi muy 903 kon waxee nañ 903 si latif moom ñëpp xam nañ ko 903 ngay def si latif waaye danga koy def ñeenti jataay wala ñetti jataay nga nga def ko toog jóg taxaw jóg baagante di ko def 903 yàlla